mooy boppu saaru suuratul fatxi saar wi mooy tekki saaru ubbi yàlla da cee dëxal yonantu bi ubbeeku gu rëy rëy rëy rëy saar wi nag mi ngi wàcc ci palaas bu ñu tuddee Dajnaan Madinatul Munawwara dafa tëdd ba guddi mu gént sama borom wan ko li war a xew ëllëg te mooy dugg màkka ànd ak ay sahabaam ñu bokk wër kaaba gi dox safa marwa ñay watu watu ñay coiffé wu seen karaw ya mu xëy rek nag wax leen ko ñoom ñu kontaan lool bég ndax namu nañ màkka juróom benni at a ngi nii seen tànk dëggul fa foofu rek lañ xam moom la alquran laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bil haqq la tadxuluna almasjid alxarama insha allahu aminina muxalliqiina ruusakum wa muqassirin léegi nag yonantu bi xëy wax gént gi te ñoom xam nañ gént ak yonantu ndax ab yonantu lu mu gént rekk dëgg la bokkut ak gént ak ku dul ab yonantu ab yonantu bu géntoon di lekk bu yeewoo day regg ab yonantu bu géntoon di naan bu yeewoo day màndi moo tax yonentu yàlla Ibrahima ba mu waxee doom ji ne ko inni ara fil manaami inni asbahuka doom ji xam li xew rek mu ne ko yaa abati if'al maa tu'maru satajiduni insha allahu mina saabiriin comme gént nga di ma rey rek soo yeboo defal li la sa borom digal beneen riwaayo bi nag gént naa ñi digal ma ma lay rey waaye ñaar yëpp comme ci gént la ko dikkee rek ñoo xam xatte léegi nag ñoom tamit bañ xamee loola ñi kontaan ndax xam ne gént ak yonentu luy am lay doon moo tax yonentu bi daana woor ba dog jot mu mujj jokkale ba ca ëllëg sa léegi-léegi mu jokkalewaat ba ca ñetteelu fan ba saxaaba yi nag ñu xiir lañ ci lu baax ñu ko cay toppandoor ñenn ñe ba la am ñaari fan xëm ñii ba la ñoo am fan ak genn wàll xëm mu ne leen bu leen ma toppandoorati ci lii man danaay tëdd ba guddi ma gént sama borom di ma leyal di ma jox naan di ma di ma jox ndox may naan te nag su géntee loola rek dafay regg génte loolu tamit dafay màndi kon li ma man comme manu leen ko fa ma yegg yeggu leen fa du leen ma toppandoo ñoo ña bàyyi loola léegi nag fi mu yàggul mu ne leen waaj leen jot naa ndigal nañu ànd ñi dem màkkatal mukarrama war a defi umra xeexi huma nag defi umra rek namanti ko ak kaaba gi moom a tax a jug waaj leen ñi ànd dem lu mat ti junney saxaaba ak ñeenti téeméer jug ànd ak moom lim boobu mooy bi gën a wér ba ñu demee nag ba ci biiru àlli yéen ñi dem màkk xam ngeen ko te foofu mooy miiqa bi nga xam ne ku bàyyee ko madinatul munawara rek foofa ngay xarmalee ba sénégalais yi sax foofu lañuy ñuy ndax dañuy njëkkee siyaare sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ba pare door a aji yonentu bi xarmalee foofa waaye terewul nag am na ñeneen ñu ànd ak moom dañoo yéex a armal dem nañ ba juux fa ñee ñoom xarmalee dul fa ñu ñëw nag ba ci place boobu ñuy tuddee Xudaybiya teen la moom ak Màkka benn marxala rek la sorewut ñii ne ñaari marxala imaamu Maalik sax dafa ne ci xurum ji la bokk ibnu Qasaar ne genn wàll gi moo bokk ci xurum bi benn wàll gi bokk ci xilla ji yonentu bi campé foofa ngir bëgg jàmm yónni nag tabaarakallaahu Quraash maanaam Quraash ibnu Umayyata al-Xuzaa'iyu ne ko waral sama gëléem gi ko demal ma màkka ne leen damaa ñëw ngir wër si kaaba gi rek ma ngir xeex kooka dem gaa yi téye ko rey gëléem ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam xaw koo sonal mu rëcc ñëw ba mu ñëwee yonantu bi dajalewaat leen ne Seyduna Omar mission bi ma war a dox kat yow laa ci wóolu demal ma màkka nga waxal ma leen ne leen damaa ñëw ngir jàmm xumra mu ma tax a ñëw waaye xeexu ma Seydina Omar xam na boppam mu ne ko Makka dama faa néewi bokk fu mu ne nii daanaka dese ma fa mbokk te ku bëri noonu laa damay ragal su ma demee gars yi ray ma waaye danaa la proposé koo xam ne boo ko yónnee li nga bëgg dana am mu ne ko kan la mu ne ko yónnil Seydina Ousmane ko fa bëri mbokk la te ku néewi noonu la kon ndeke ñu yónni la nga yónni haat lu fi yàgg la sa kilifa yónni la nga seet keneen yónni haat ko wala nga proposé keneen pour mu yónni ko dëgg-dëgg dara nekkul ci. mu yónni Sayyidina Usmaan ne ko kaay demal ma Makka wax leen leen ñëwuma ngir xeex damaa ñëw rek ngir wër si Kaaba gi wax na leen ko nag Sayyidina Usmaan dem ak war gën nga saanam ba muy dem ànd naag fukki nit fukki nit ñooña mu ànd ak ñoom dañ faa bari ay mbokk te dañ gën nañ leen a gis ñoom tamit ñu ne ko dañoo bëgg a ànd ak yow pour namante koog suñ mbokk yi gaa ya dem nañ si ànd ak Sayyidina Usmaan ñu boole leen jàpp tëj leen parce que lu mat ñetti fan xibaar ba nag seytaane siiwal ne rey nañ Seydina Ousmane te xam nga ndawal buur moom saa yuñ ko mosee rey muy ambassadeur ku ko rey ci réew foog guerre am te kii mooy ambassadeur yonentu yàlla Muhammad ca Makka ah ñu xam ne kon guerre mënta ñàkk yonentu bi mbaaxam ga mu jël loxoom nday jooram bi mu présenté boppam jël loxoom mooy ba mu présenté maanaam Seydina Ousmane mu dóor ko ci ne ñëw leen ngeen jaayan ci deretu Seydina Ousmane xeex man ta ñàkk juguma woon ngir xeex waaye comme rey nañu Ousmane faw ñu xeex a ah ba mu dóorantee ñaari loxo yee nag gars yi commencé ñëw jaayante ki njëkk ñëw jaayante mooy Sinaan ibnu naan moo njëkka ñëw jël loxom teg ko ci loxol yonent bi ne ko maa ngi jaayante ci deretu Seydina Ousmane ji sahaba yi ku ñëwati rek ne maa ngi jaayante li li si naan jaayante ku ñu tuddee daal Jadd ibnu Qays al Ansaar yi moom kenn rek moo jaayante léegi jaayante nañ ba pare ñu toog tuuti màkk yónni ku ñuy tuddee xaliis moom nag ahabise mooy fami xabaayil yi nekk booy bala ngaa dugg màkk ci dëkk yi ko wër mooy seen njiit waaye nag gaa yi ko yónni hóoluwuñ ko mu jigéen nag ñu yónni Urwatu bnu Mas'ud kooku mooy njiital waa Taif yónni nañ ko nag mu ñëw ba mu yegsee fekk bëkk néegam yonentu yàlla Muhammad di Mughiratu bnu Shu'ba doomi mbokkam la Muxiira bun Saaba baayam ak baayu Urwatu ñoo bokk benn baay mu ñëw nag indil mission waa Makka fekk dafa ne leen bàyyi leen ma dem lu ma leen indil nag na ngeen ko appliquer ngeen pratiquer ko ñëw na mu fekk nag garde corps yonentu baa ngi téye jaasi tiim yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam te doomi mbokkam la mu ñëw nag war a wax ak yonentu bi arab nag lii seen aada kilifa buy wax ak moromam kilifaam ci kàddu yoo xam ne ñor na ko te bëgguñ mu nekk lu fireeku da ngay téye ci sikkiñ ba mu téye sa sikkiñ bi nga xulli say bët xool ko mu xulli say bët xool la ngeen door a wax foofa lu ngeen fa wax rek lu dëgër lay doon mu jël loxoom bi bëgg koo teg ci sikkiñu yonantu bi pour wax ak moom doomi mbokkam ma jël jaasi ja di mu xiratu mu saxaba rek dóor ko ko ci loxo ne ko sa loxo bii boo ko bëggee teg ci loxol ci sikkiñëb Sayyiduna Muhammad rek ma dagg ko mu ne ko yaay kan mu ne ko maay sa doomi mbokk mi mu ne ko toskare ñeel na la jamonoy jaahil li ma la fayal ci ay bor fi ma la féete woon tey amoo dara loo may bëgg a lu dul lii mu ne ko kii moo ñu gënal suñu bakkan say loxo bi buy tegu ci sikkiñam mi ma ray la ah mu toog nag commencé wax ne ko ah Seydunaa Muhammad maa ngi lay xamal ne ñii nga ànd ak mënuñoo xeex ak waa Makka ñii ma gis amuñ doole dañoo lompañ te ñii ma gis dañoo ñëw rek ngir lekk li nga am waaye pare wuñ ngir ànd ak yow wax jooju nag métti sayduna aboubacar lool aboubacar saaga ko ne ko um sus batara laata wax jooju nag soo ko doon firi sax boo moytul wal fajiri xar um ndax saaga wu ñaaw la mu ne ku saaga saaga woowa ñu ne ko sayduna aboubacar mu ne yellante woon nag keneen saaga suñ yàlla ji ko dul aboubacar ñu ne ko lu tax mu ne dafa ma defaloon teraanga gu rëy rëy te sonnoo guma koo fay te dafa bokk ci li aadaay yi nit bu la defalee teraanga te fayaguloo ko ko bu la tooñee doo fayeeku am nañ aada ju rafet bala ngaa fayeeku ci nit day fekk nga fay ko teraanga jim la defal mu ne ki teraanga jim ma defal tooñ jii mu tooñ ma lu mu rëy rëy du ma fayeeku bàyyi léegi nag ne yonentu maa lay xamal ne sa gaa yi mënuñoo xeex ak ñële léegi nag ma ngay dem moom tamit dem na gis waa Màkka ne leen li ma leen yëgal bu ngeen yeboo ngeen signé yonentu bi ak juboo waaye xeex arrangé wul leen man dem naa Faris ci seen buur ba dem naa Rome ci seen buur ba dem naa Éthiopie ci seen buur ba waaye kii na ko nitam ñi gëmee gisuma kuñ ko gëmee maa ngi leen di gëñal ne bu taflee balaa taflit waa laal suuf sax gaa yi njëkkalante ko ci ténqal nit lay lay lay tegu mu lekk ko bu xaxtandikoo noona même yonent bi ndàmpatal na sax mu nekk deret ñi génnee deret ci moom mu jox ko benn saaba ne ko demal tuurali ma ko foofu la kenn gisut koo ko dem far naan ko kon nga xam ne tuur na ndox sax ci këll yónni ko ñu ne ko demal nga tuuri ko mu naan ko yonent yi nag la génnee ci ñoom bokk na nit ñi ndax loola lu laab la lu set la lu sel lay doon kon nga xam ne kon nitam ña fonkoon nañ ko mu ne kooku mënu leen a geer ak moom li ma ci xam nag si ngeen leen ak moom daal benn patt ngeen fexe ba jubook moom gaa yi nag toog ba ci kanam ñu yónni Suhaylum noo am amrin yonent bi ku mën a gàn nga la ba mu séenee Suhaylu rek mu ne hee Màkka de bëgg nañ jàmm comme Suhaylu la ñu yónni te Suhaylu mooy tasxiiru sëhlu sëhlu mooy tekki lu yomb lu jàppandi ah sëhlu ñëw nag ne ko waaw waa Makka ma yónni ñu am yu ñu war a signé yow li ñu wax daal mooy ne demal nga ñibbi ba déwén bu déwénee nga ñëw ci dëkk bi ñu bàyyi la ñetti fan nga wër Kaaba gi yaag sa gaa yi waaye nag ren moom mayuñ la nga jege ko ñu ne ko mu ne lu tax ñu ne ko yow kat suñu mbokk yu bari ray nga leen suñuy doom yu bari ray nga leen suñuy kilifa yu bari ray nga leen soo àndeek sa gàngoor nga ñëw dugg ci kaaba gi ci ak noteel te ñun joxuñ la autorisation ñun dootuñ tekkeeti dara ci arab yi dimbali ñu rek nga ñibbi ba déwén ñaareel bi tamit dañuy signé ak yow fukki at dootuñ xeexati fii ba fukki at dootuñ xeex mu ne ko d'accord naa mu ne ko ñetteel bi képp koo xam ne dafa rëccee ci ñun rëcci kilifaam ñëw ci yow donte gëm na yàlla te kilifaam àndut ci danga ñu koy delloo yonent bi ne ko d'accord naa mu ne ko nag ku rëccee ci yow gëmoon sa diina ji ba ci kanam gëmatul la mu déparé fa di ñëw ci ñun bu hegsee ci ñun tamit duñ la ko delloo yonent bi ne ko d'accord naa ku bëgg jàmm la léegi nag ñi war a signé nag accord yooya yonent bi woo Aliou mooy secrétaire am ne ko Aliou bindal bismillahi rahmani rahim hada ma salaha muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qurayshan bindal ne bismillahi rahmani rahim lii la sayduna muhammad d'accord ak waa Quraysh juboon na ceeg ñoom Ali bind bismillahi rahmaani rahim Suhaylu ne ko dindil bismillahi rahmaani rahim bi xamuñu ko bindal li si doon sa baay yi di bind ak sa maam yi bindal bismikallahuma mu bàyyi mu debaat mu ne ko waa bind dindil rasulullahi gi buñ gëmoon ne yaay rasulullahi duñ la duñ la duñ xeex ak yow bindal rek Muhammad ibnu Abdallah mu ne Aliou essentiellement rasulullahi gi mu ne ko xéeféer bu bon bi dana tax may effacer rasulullahi du ma ko def mukk mu ne ko dindi ko mu ne ko duma ko dindi mu ne ko kon wan ma fi mu dooree ak fu mu yem ma tekki sama baaraam dindi ko yonentu xàmmeewul sax tura mënu koo liir soo ko mënu koo bind mënu koo liir Aliou dafa jëfee teggihin teggihin na mayut ko muy effacé turu Sayyiduna Muhammad su ko defee nag yonentu bi effacel ko boppam ñi ñu mu ne ko nag ah, Omar Aliou yaa ngi kii waaye lii dal ma dana la dali moo tax keroog ba mu war a signé ak Muawiya ñu war leen a jubale ñu am accord yu ñu war a d'accord pour signé ko Aliou ibnu Abi Talib bind ne lii la ali ibnu abi talib amirul muminina d'accord ak muawiya muawiya ne ko dindil amirul muminina ji suñ ci àndoon li kon lii du am defal ali ibnu abi talib rek kon xam nga kenn du yonantu bi ba mu koy wax ne ko li ma dal dana la dal lu soree sori la te fi mu koy daleek daanaka jege na ñaar fukki at nangam jëm fanweer ñaar fukki at nangam mat na ko léegi nag ñi bokk d'accord signé nañ ba pare léegi nag yonantu bi ne loj leen seeni géléem te watu ñi ñibbi yàlla danañu ko bindal yoolab ko umra moo tax bu ñuy lim umra bi yonantu bi boole ca booba ñeent lay doon boo ci boolewut booba ñett lay doon ñu koy tuddee umratul qadawiya duñ ko firee nag umraak fay gi fay umra kenn du ko fay qadawiya bi maanaa mooy umraak juboo gi umratul qadaa mooy umraak juboo gi qadaa foofu du firi fay juboo lay tekki mooy xéwénoo gi léegi nag yonantu bi ne loj leen seen gëléem ñi ñibbi gaa ya kenn nanguwuta loj ñëpp tayal yonent bi dug dugg ci umu salmata moom la indiwaale woon ca xare booba ca ca ca yoonam woowa ne ko ah waaye nit ñi mbaa danañ texe yéen yéen mbooloo moo xam ne seen ak yonentu digal na leen ñi bañ mu ne ko wallaay bañuñu dañ laa bëgg sopp la yow rek yaa leen gënal ku ne waaye dañoo namoon màkka yaakaaroon ne tey danañ fa fanaani seen cofeel yépp nekk ca dëkk ba ñu dem a dem ba tiim dëkk bi nar a dëppaat looloo tax ñu tayal yow daal bul wax kenn ne ko watul bul wax kenn ne ko lojal sa gëléem yow lojal sa gëléem rek ta nga watu yonent bi koo koy wat daal kooka avant genn paasu wàll bopp bi di ndeyjoor ba avant muy jeex rek saxaaba yëpp watu nañ bam pare paree mu loj gëléem yi juróom-ñaar fukki gëléem la indi aale woon saxaaba yëpp àntoon ak juróom-ñaar téeméeri gëléem lañ indi ñu loj leen foofa nag su ko defee nag ñay watu watu ñay wàññi seen kawar ya wàññi ko ñu dem ñibbi mu métti ci ñoom lool métti gi nag mën nga ko natt ci jamono kenn ku ne ci ñun bu tàggoo woon damay dem màkka ñi jox la ñaari junne ñi jox la cinquante mille jël seen i yóbbante ñu yóbbale seen i ñaan ñu yóbbante la ay kaalaaki kurus ak samsam nga dugg ci avion bi dema dem ba ca aéroportu Jidda ba gaa yi xool sa visa ne baaxut da ngay ñibbi xaat ñu jékki-jékki nga ñib si loola boo nekkee nitu jom nitu ker kersa boo moytu da nga dee da ngay wax ne naka laa gisee ñi ma tàggoo woon am na ñoo xam ne tàggoo nañ ñëw Ndakaaru gi rek mënuñoo ñibbi xaat Saalum ñi mënuñoo ñibbi xaat Bawol ñi mënuñoo ñibbi xaat feneen dañu mujj làqatu ba aj ji passé ñu jël jënd kaal dem marché aslem jënd ay kaal ne dama aji ngir sagal seen bopp nag kon noonu la mel ci métit loolu dafa métti yaakaar ju tas euh, nit ku baax nit ku am ngor mënu koo supporter su ko defee nag yàlla nag yonent bi nag daal dañ ma ngay ñibbee nag ba xeg si place bu nga naan ndeysaanam nag ci la saar wi wàcc nag yàlla ne ko danaa la may ak xubbeeku ngoo xam ne gu bir la man yàlla danaa la jéggal sa bàkkaar yu njëkk yàgg yu mujj yi man yàlla danaa mottali sama xéewal ba mat ci yow sëkk man yàlla danaa la dimbale ba sa xol sedd man yàlla danaa la gindi teg la ci yoonu siraatal mustaqima wax a wax ba wax ja jeex saxaaba yi ne ko fi la yàlla féetee de xam nañ ko fu mu ñu féetee ñun lañ xamut yàlla door a wàcce aaya ya ci tegu ne ko sa góoy gëm ñi dinaa leen dugal haljaana haljaana yoo xam ne xéewal yi du fa jeex ba aayaat ya jeex nag ñoom ñëpp ngi door a kontaan ñi bi moo tax loolu mooy sababu nusooli aayaat yu njëkk yi bu mujj ba nag xaybar lay doon yàlla ne ñibi leen loolu weeru tabaski la xew ci juróom-benneel ma tam ñi dugg ci kon xat mi jeex na ne nga dugg ci beneen xat muy xatam juróom-ñaareel mi ci tam rek avant weeru tam xaret di jeex nag sama borom ne leen dem leen xaybar waaye yéen ñi demoon nag ci Xudaybiya euh, yéen ay dem xarbay xay xaybar muy junne ñeenti téeméeri kenn du ca dollee ko ba mu demee xaybar yàlla sotti ki ñoom ak ragal ñi màngee fa xalal dul jeex yoo xam ne kenn xamul ni mu toll ña bëggutoon a dem ña demutoon foog ne yonentu day des ca xare ba bëgg a ànd ak ñoom ñu ne leen du ngeen dem junne ñeenti téeméer téeméeri ñooy dem nag kon gis nga la leen naqaree woon fële yàlla fayee na leen ko ci xaybar moo tax euh, saar wi lépp ñaar yi lay traité xaaj bu njëkk bi mooy xuday bi yaag la ko ci yàlla dëxal euh, euh, bu mujj bi nag mooy xaybar dañ ca bàyyeekoo ndax diggante bi sax weer ak dara rek la ñu dem fa mangi alal jooja alal ju bëri lañ fa jëlee waaye ku fekkee woon lee rek yaay fekkee lii ba ñuy dem nag ñu bëree bari ci munaafiquuna ne ay jullit lañ demuñu dañ ne ah yonentu moo xam ne fii la ko waa Quraysh fekk fii ci dëkkam bi rey ci ñoom juróom-ñaar fukk la ca xew ca xare ba muy Uhud waaye ñoom kay buñ demee fekk leen dañ leen di faagaagal ñun demuñ fenn moo tax arab ya dëkkee ci àll ba ñooñu kenn nangu toon dem ko wax ñu ne shagalan naa amwaalu naa wa ahlu naa ñun demuñ fen suñ njaboot gi lañ tal suñu alal yi lañ dal muy suñ bitig bi demuñ fenn loolu tamit ni du jeex léegi-léegi nga gis nit ki wootee lu jëm ci wàllu yàlla waaye du la jaral tëj sa bitig bi nga ne déwuma fen lu taxaw sa kanam nga ne déwuma fenn loolu nag la yàlla di wax ni ak lim defal yonantu bi sallallahu alayhi loolu mooy sama bu nusool bu njëkk bi ci wàllu saar woowa saar wi nag suratul fatxi la boo calculer maanaam aaya yi nga xam ne moom la saar wi am 29 la ñaar fukki aaya la ak juróom-ñeent soo calculer baat yi maanaam 560 la juróomi téeméeri baat ak juróom-benn fukk boo calculer xaraf yi 2408 lay doon ñaari junney xaraf ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett. lii la saar wi ëmb ci ay aayaat ëmb ko ci ay baat muy ay kalimaat ëmb ko ci ay xuruuf ñaari yooyu ma wax ci muy xudaybiya bi ak fat fathu Makk ak kii bi xaybar bi maanaam mooy mooy mooy mooy sababu nu solu saar wi léegi buñ ci jaaree rek day gaaw yonentu bi nag lim si ak ñoom boo ko xoolee dangay ngay ne pertement la waaye lépp ay bénéfice la ay njariñ la ñeexal lislaam lu tax fukki at buñ toogee xeexatuñ jullit ñi dañ toll ñoo xam ne kenn du leen ñeme dékkiwati fukki at buñ toogee xeexuñ kenn dutu ñeme xeex ñoom moo tax fa la sax daanaka ñoom ñeme xuraysin boobu lañ ko jëkk xeex ak yonantu bi ndax ñetti at rek lañ ci teg fatfu màkka ñëw yonantu bi am doole joo xam ne ñemewuñ koo dékku ñoom ñëpp di ko doon tere dëkk ba ñoo mujj waaf ci kanamam sugg di ko jéggalu ne ko a ah, loo ñuy def nag yow de mbokk mu baax nga doomi mbokk mu baax nga mu ne aqulu maa qaala aqi yusuf la tasriba alaykum al yawma yaxfiru laahu lakum ba ci tegu tamit mooy ku murtat baxee ko ci yonent bi bu mu del seeti waaye ko xas murtat bàyyi yonent bi gannaaw lislaam soxlaatul la koo kay bëgguñ mu del si ñun ñun kay bu ñuy soxla ku baax lañ soxla ku baaxut kay ba wan yonent bi gannaaw ne lislaam ñoratu ko ba mu dem màkka lu ko yonent bi defee kooku bu ñu ko delloo xam lu ñu njariñ duñ ko forcé ne ko far force nga gëm ndax laa ikraha fi diin koo xamee ne tamit gëm na yonent bi ba xam caf nga ak lislaam ba ko defee kilifaam ya ànduñu ca mu jàllal bi ko bàyyi yonantu bu dina dem Makka kooka dana jox dana dana dana mottali mission yonantu ba foofa ndax kat bari na ku noonoo yonantu bi tax te xamuñ ko woon su boobaa nag seen mbokk yi nga xam ne ñooy seetu ci yonantu bi nekk ambassadeur yonantu bi ca Makka ñu gis seen mbaax gis seen ak jub ak seen ak kóolute ak ñoo nga di leen di nëbbu seen gëm nga di leen ci suuf danañ dem ba ñoom ñëpp tuub moo tax yonantu bi avant muy dem Makka bu ne fatu Makka rek presque waa Makka yëpp tuub nañ lu ci ëpp tuub nañ moo tax ñetti at yii li jullit ñi ñekkoon màkka li ñu liggéey ci lislaam kenn mënu la koo wax su ma la ko doon misaal xam nga tey ñi nga xam ne tey ay étranger lañ bàyyeekoo ko dem itali ñi dem Amérique ñi dem maanaam euh, ñi dem Espagne ñooña tey li ñu liggéey ci lislaam kenn xamut ni mu toll tuubal nañ fa ay tubaab woo nañ leen fa tabax nañ fa ay jàkk jën nañ fa ay église soppi ko ay jàkka ñooña tey bu ñu demutoon duñ xam taarab lislaam kon ñii kon la yonent bi signé yëpp njariñ la ñeexal lislaam moo tax euh, Ibnu Abbas daana wax ne bu ñu yonantu waxatee lu wuuteeg suñ xelaat nañ tuumaal suñ xelaat te ànd ak moom ndax ba mu waxee lii suñ xelaat ànduñ ci woon waaye buñ si àndutoon ak yàqule waaye bañ demee ba gis mujj ga xam nañ ne lépp intérêt bi lislaam la kon sa kilifa bu la waxee fa gis-gisam yegg te sa gis-gis yeggul fa d'accord rek waaye boo ko bëggee weddi rek da ngay mujj am problème kon nag moo tax sax euh, saxaaba yu bari bu ñu waxee ñu ne fatfu Màkka daal mooy Hudaybiya rek fatfu Màkka pire mooy ndax ca lañ amee lañ amee ca fat fu màkk léegi nag ayaat yooyu lay jàngale dañ ciy jaar mu gaaw rek moom lay alxuraan di wax nii moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa koon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira innaa naka ñun yàlla fatax naa ubbi nañ làkk ñeexal la fataxan ak hubbi mu bii nan ngay aji biir hubbi ko sax waaye yàlla lu mu dëhale ak lu def ñoo yem def na ko nag li yaxfira ngir na jéggal làkka ñaal la allaahu yàlla maa taqaddama li jiitu min tan bi ko ci sa bàkkaar wa maa taaqara ak li mujj yonentu bi nag amut bàkkaar bàkkaaram mooy xilaafu awlaa rek di xasanaatul abraar sayyiatul muqarrabina wa yutima ngir na matal ni'matahu xéewalam alayka ci yow wa yahdiyaka mu gindi la siraatan ci yoon mustaqim wu jub kocc wa yansuruka mu dimbalee la dana dimbale la laahu yàlla nasran ak ndimbal asiisan goo xam ne gu tedd lay doon bu ko defee nag huwa moom yàlla la fii mooy buur ba nga xam ne ansala wàccee na asakinata ak dal fii qulubil mu'minin ci xoli way gëm ña li yes daadoo ngir nañ dolleeku imaanan ak ngëm imaanan ak kóolute maa imaani ànd ak seen kóolute ga walillaahi aji nekk la ñeel yàlla junuudu samawaati soldaari juróom-ñaari asamaan wala arda juróom-ñaari suuf yàlla xam nañu ko xeexal ñu dut wa kaana a jekk allahu yàlla aliman xamaa kon la hakiman ku xereña la kon gis nga ko cheikh al islam dafa daan wax ne boo gisee ayaat yépp yàlla fenn fi rek la tuddee faa'il li yaxfira laka laahu foofu faa'il yi ñëw na li yaxfira laka laahu faa'il yi ñëw na muy ismu jalaal waaye wa yutimma faa'il ñëwut wa yahdiyaka faa'il ñëwut mu indi na ñetteel ba wa yansuraka faa'il ja door a ñëw mu ne lañ cay déggee mooy ndi ndimbal ci yàlla rek lay bàyyee ko ndimbal ci yàlla rek lay bàyyee ko buñ ko séentu fu dul yàlla moo tax mu ne baatu nasru mosta ñëw ci alquran te àndut ak ismu jalaal nasrun min allaahi wa fathun qarib ida jaa nasrullaahi in yansurkum allaahu fala gaaliba lakum wa man nasru ila min indillah moo tax mu ne wa yansuraka allaahu kon ndimbal ci yàlla rek lay bàyyee ko moo tax kon tur yi yëpp tudd na ko indi ñetti fi'il waaye amul faa'il ba mu tuddee nasru rek mu door a indi faa'il mu ismu jalaal iman tamit dana dolleeku dana wàññeeku ndax mu ne lies daadoo imaanan imaamu Malik ak Shaafi yu werante nañ ci Shaafi yu dafa gëm ne gëm yàlla daal bu xasee am noonu rek lay toll du wàññeeku du dolleeku ndax juddoo xaale la moo ak yàlla la ci yow Malik ne ko ah kay dana dolleeku dana wàññeeku waaye dolleeku ga ñu ngi koy xamee ci dolli jëf ju baax rek wàññeeku ga ñu ngi koy xamee ci wàññi jëf ju baax dolli jëf ju bon soo daan naafila téeméer rakka ci guddi gi nga mujj la fukk sa gëm yàlla wàññeeku na nga daan saraxe bët bu set nga dimbale nit ñi joxe junne mbaa ñaari junne wàññi ko di joxe ñaar téeméer sa gëm wàññeeku na bët bu set nga daan jokk sa mbokk yi di leen seeti seetootoo kenn sa gëm yàlla ga wàññeeku na bët bu set nga jàng lu mat fukki siisib ci alquran yow nag léegi sax toog nga lu mat weer wala ñaari fan ñett jàngoo alquran sa gëm yàlla nga wàññeeku na moo tax mu ne ci dooleeku jëf yu baax yi ci la ñu xamee dooleeku gëm yàlla ci wàññeekuk jëf yu baax yi ci la ñu xamee wàññeekuk gëm yàlla loolu la Maalik gëm imaamu Saafi moom dafa ne gëm yàlla du wàññeeku du dooleek nam toll rek lay toll yàlla nag ne mooy dem wàcce na ak dal ndax lii métti woon na dem ba jub màkk dëpp xam nga ne métti na de waaye yàlla wàkkee ci yéen ak dal nag ba ngeen mën a xam ba ngeen mën a maanaam laaw dundu mbir mi ba nga tegu tamit yàlla xam na soldaar yu ko xeexal yu dul yéen yàlla bu bëggee ñu ko xeexal ci diina ji du du doon maanaam du doon yéen ji nga keroog xare Badar wàccee na ay soldaar euh, yoo xam ne ay malaaka la ñu ñëw di ko xeexle kenn xamul nuñ toll kon yéen fu leen yàlla xemle xem leen fa rek bu leen ca dolli dara bu ngeen bëggee am jàmm aayaat yi foofu la yem saxaaba yi ne ko fi la yàlla féetee de xam nañ ko defal na la fathu inaa fatahna laka fathan mubinan defal na la gufraan ci li yaxfira laka laahu maa taqaddama min zanbika wa maa defal na la ni'matu ci wayutima ni'matu alayka defal na la nasru ci wayansur wayansurullahu nasran asisan lii lépp nga am ko ñun lu ñu xam nag yàlla wàcce aay ji di ñu wax ñun li ñu xam moom lay wax nii moo tax mu ne li yu dëqi la ngir na tàbbal na way gëm ñu góor ñi wal na ay way gëm ñu jigéen ñi fu mu leen di tàbbal jannaatin ay haljaana tajiri yooyu dana daw min taxtiyaa ci roon haljaana ya anahaaru dex yay ñeent nga jàngoon ko démb xaal di mun bu nekk seen ak béel ci aljaana ja wayu kafir dana kafaara moom yàlla anu walis leen sayiaatihim seen ñaawteef yi wa kaana nekk na zalika loolu indilaahi fa yàlla fawsan di ak texe aziman gu màgg wayu aziba ngir na mbugal tamit munaafiqina naafiq yu góor ñi wal munaafiqaati naafiq yu jigéen ñi wal musrikiina way weddi ñu góor ñi di bokkaale ak wal musrikaati way bokkaale ñu jigéen ñi azaaniina ñoo xam ne ña ngay njortu bi laay ci yàlla ran na suu i njortu lu ñaaw alayhim dal na seen kaw daairatu suu i peegam toroxtaane wa xadiba sàngi na laahu yàlla alayhim ci ñoom wala anhum soril na leen yërmande wa aada la lahum ñeexal leen jahannama safara wa saat bon na masiran mujj waay ba ta mooy safara kon fi ñu yàlla féetee leer na mooy danañu dugal xal janna yoo xam ne am na ay deex yi lem la yi ndox la yi soow la yi sàngara la alquran ba alquran jeex foo jàngee mu a tajiri min taxti an anhaaru waaye nag eh, ci fële rek la ko door a firee suratu suratu muhammad eh, min maa in asinin wa anhaaru min labanin lam yataxayyar taamahu wa anhaaru min asalin wa anhaaru min xamarin lazati lisharibin wa anhaaru min min min wa anhaaru min min min asalin musafan waaye ba téere bi jeex du ko firi foofu rek la ko firi mooy ñeenti sew nda ya muy wax waaye foo jàng si si boo jeex balaa jeex te jëri min taati al anhaaru danga waaye foofu rek la koy firi kon xéewal yooyu yàlla defal na ñu ko loolu kay ku ko xam ñàkkoo dara ba ca ko mu ne suñ ñaaw téef yëpp di ay bàkkaar yàlla danañu ko jéggal mën nañu ko soppil sax ay rafet rafet kon fi ñu yàlla féetee leer na fu mu féetee naafiqi nag ak musrikuuna yi ñuy njort ci yonantu bi ne xare bii muy dem du ca des du ñëpp si mënu caa génn su ko defee yàlla ne noonu safara laa leen féetee foofu la leen dugal dama leen a woo ci ndabal teraanga ñi bañ man nag damaa tabe ku ma woo ci teraanga nga bañ ma ma ma mbugal la yàlla dafa tabe safara dara taxu ko lu tabe yàlla lay feeñal ñaara fi ne ñaar ñi kii dafa ne courant ma joxe ñaari junne waaye faaw bi ku ci bokkul nag sama yoon nekku ci kii ne courant ma jox la cinq cent mille waaye courant wut nag ma tëj la kaso kooku xanaa moo gën a tabe kooku mooy yàlla yàlla dafa ne ñëw leen ci sama rang bi di aljaana ma teral leen ñi lànk ne ñun aljaana safut ñu mu ne kon taxal ma dugal leen safara mbugal leen ngir bëgg ñëpp dem aljaana rek loolu mooy dayot tabe léegi ba tey mi ngi wax rek ci yonantu beeg ni mu ko yónnee mu nekk seede ci xeetam wi di bëgg la ci aljaana di xuppe ci safara moom lay wax si nii ne walillaahi aji nekk la ñeel yàlla junoodu samaawaati nguuri juróom maanaam soldaari juróom juróom-ñaari asamaan yi wal ardi ak soldaar yi nekk juróom-ñaari suuf yëpp ay soldaari yàlla lañ mën nañ koo xeexal wa kaana naka jekk allaahu yàlla azizan notaakoon la ci nguuram xakiman ku xereña la innaa naka ñun yàlla arsal naa arsalnaaka yónni nañ la shaahidan ngay aji seede sa xeet wi ëllëg wa mubashiran ngay aji bégle ku la gëm ci aljana wa nathiran ngay xuppe képp ku la ci safara yónni nañ la lu tax li tuuminoo ngir nañu gëm billaahi ci yàlla wa rasulihi ak yonantum bi watu aziruhu na ngeen wek ko na ngeen ko màggal watu waqiruhu na ngeen ko wekk watu sabbihu na ngeen sàbbal yàlla bukratan ci waxtu xëy wa asilan ak ngoon muy julli juróom yi inna lisinaal ñi nga xam ne yu bàyyoo nag dañ jaayanteeg yow inna maa yu bàyyoo daal dañu jaayanteeg laaha yàlla yeddullaahi kartenal yàlla fawqa aydiim ak yi nekk la seen loxo yi fa man naqafa képp koo xam ne dafa firi jaayante ga fa innama yankusu ndaal dana dellu loroog firéem ga ala nafsi ci bakkanam wa man awfa képp koo xam ne matal na bi ma ahada ci lim ko dante àllee ci moom laaxa yàlla fa sa nuti danañu jox ko ajran payoor aziman gu màgg kon ku jaayanteeg yonantu bi rek yàlla nga jaayanteeg ndax yonantu dafa jeex tàkk ci yàlla man rasuul rasul faqad ata allah yàlla ne ku to ku topp yonantu bi mën nga topp kon ku jaayanteeg moom tamit man nga jaayanteeg ndax yàlla kat dafa fonk yonantu bi ba lëkkale turam wi ak turu yonantu bi ci nodd kuy nodd ku ne foo ne ashadu an laa ilaaha illallah rek wa anna muhammad rasulullah li ko mooy nodd ga du wér lëkkale turam waa turam wi ci kuy liqaam foo ne ashadu an laa ilaaha wa anna muhammad rasulullah li ko liqaama du wér lëkkale tu turam wi ak turam ci kuy tuub dugg ci diine foone ne ashadu an laa ilaaha illallah boo ci tegu anna muhammad euh, ga wérul lëkkale ko ci taaya kuy taaya tamit boo ne ashadu an laa ilaaha rek boo ca tegu wa anna muhammad rasulullah taaya ga wérul kon loola yonent rek moo ko am ci yàlla moo tax alquran ne ko wa rafa'naa laka zikraka man yàlla yëkkati naa sa tur lëkkale koog sama tur ku ma tudd tudd la ku ma tudd bu ma tudd sax du ma soxla tuddam ga kon nag yadullaahi fawqa aydihim loxol loxol yàlla ma ngi ci loxol ma ngi ci loxol gaaye de ndax comme yaay jaayante nag yonent bi moo tax yonent bi taxaw ne sama loxo bi mooy sama bopp ndeyjoor bii moo représenté Sayyiduna Usmaan dóorante ñaari loxo ya ne ñëw leen ngeen jaayante eh, Sinaan ibnu Sinaan moo njëkk a ñëw maanaam jaayante Euh, ku ku foor la lu toll ni yonent bi bu jëlee jëmmam ja xaaj ko ñaari xaaj benn xaaj bii di loxoom bi taxaw taxawaayu Ousmane benn xaajam bii di yor taxaw taxawaayu yonent bi mu boole leen kon Ousmane kenn mënu ko génne ci yonent bi loolaa ko may darajaay moom kenn ci saxaaba yi moo denc ñaari doomi yonent bi kenn xamu ko denc na naa euh, Roqiyatu mu génn àdduna ñu may ko Umu Kulsoom mu génn àdduna yonent bi ne waaye waaye ku xam doom ju baax na ñëw may ko sama doom yi bu ñu desoon de ma jox ko Ousmane waaye boobu Fatima rek moo fa des ta yàlla wax na ci ak moom ci Seydina Ali amul droit di ko may keneen waaye ba mu ne bu ma desee xaatoon keneen rek jox ko Seydina Ousmane Seydina Ousmane euh, kon kon Ousmane ku foor la daana wax ne Ousmane yàlla da ko rus malaaka yi rus ko kon man faw ma rus ko dafa mos a toog yonantu moom kenn saxaaba yi wër ko luppam di feeñ am lu cay feeñ Seydina Aboubacar ñëw nëbbut ko Seydina Omar ñëw nëbbut ko Seydunaa Ousmane ñëw nag mu door a defaru Aysatu xam ne occasion li mu répété wu bëriwul mu ne ko ni nga defa ni nga toogee woon lu tax sama baay ñëw defaru woo Seydunaa Omar ñëw defaru woo Ousmane ñëw nga door a defaru mu ne ko Ousmane yàlla da ko rus malaaka yi rus ko kon man mi yonantu yàlla faw ma rus ko moo tax kon Ousmane ku tedd la Ousmane bokkoon na ki ñu ëpp saxaba ci saxaba yi xalal euh, euh, keroog ba xare ba jafee ca Tabuuk moo waajaloon xare ba armée ba moo dogowoon ngir dem gasi teen ba benn yëhoot gas ko ba mu ko gasee nag te te moom di jaay ndox ma Ousmane bëggoon ko gas may jullit ñi ñi naan ndox ma keroog la yonent bi wax xadisam bu siiw ba maanaam niyatul mumini abulaxu min amalihi loola nag maarifa la ñu ci bëri boo ko firee fireem nakira da ngay juum bul taxaw naan yéene jullit moo gën maanaam jëfi jullit ju sotti déedéet jëf ju sotti ju ànd ak yéene kay man taxem ak yéene kese waaye dafa bëgg a wane ne yéene jullit bii niyatul mumini maarifa la yéene jullit bii di Seydina Ousmane te moo doon gas ba jox jullit ñi naan ablaxu moo gën a jote ca yàlla min amali ci jëfi yahud bii nga xam ne sotti na ba pare mooy gas na teen ba ba sotti waaye bul toogati rek war a def dara nga naan man kay yéene naa ko te niyatul mu ni ablaxu min amali yi déedéet nag loolu dafay tuuti ba ëpp moo tax tabaarakallaahu ba hootee euh, jumaa yi Tuubaa ja pour taxawal ko ñu bari niyatul mumini euh, maanaam tabaarakallaahu lamp faal yëkkati loxom ne ah niyatul mumini man li ma ci xam mooy niyatul mumini ab loxo waaye duma wax ne maanaam ab loxo <laughs> mu ne ab loxo rek yëkkati sa loxo def ci laa ci xam kon loolu xam na am na solo na loxo yi jëf waaye bul toog naan yéene naa rek noppi Cheikh Ibra Fall loolu la waxoon kon léegi nag aaya ji tegu ci mu ngi wax ña tardé woon ndax ba yonentu bi jógee di xare ji ba nii juhay na demuñu musaynatu demuñu aslam demuñu asja demuñu te ñooñu nee nañ ay jullit lañ fekk ñu ci bëri ay na lañ te ñoom ak yonentu bi ñoo bokk fu ñu dëkk ci wetu madinatul munawara ñoom lu tax demuñu dañ ne xayi yonantu bi waa yi si fekk ko fii ci Uhud gañe ko waaye waaye bu leen fekkee mënu cee génn ñun buñ demee dañuy dee rek demuñu fenn suñu njaboot gi lañ tal suñu alal yi lañ tal fenn lañ demul léegi-léegi nit wax ko xam nga tey léegi-léegi lu mel ni football xew ci waxin misaal mi ñi fekk si la gañe la su boobaa ñu bëree bëri dañuy wax ne ah comme dañ laa fekk si dóor la 2 0 mbaa cinq yow boo demee 10 ngay encaissé ñoom tam ñu ne ak ah, comme ñun fii la ñu fekk dóoruñu fi bu ñu leen fekkee te yàlla di mbiram demeewul noonu wa tilkal ayaamu nudaawiluhaa bayna naas nit ki mën na laa fekk si dóor la nga fekke ko dóor ko loolu rek la moo tax nag ñoom loolu lañ foogoon moo tax ñoom ñu toog ne demuñu waaye mbir ma tàng na ca ñoom de ñoom la yàllay wax nii moo tax munaafiq baaxut mooy koo xam ne bu tàngee rek mu rocceeku bu seddee rek mu ànd ak yow soo ànd ak moom di huti ba ngeen am mën na laa téel say dàll boo tisoolee mun a laa loo yëkkati mu jug jug ca waaye la ngeen xuti woon ba am ko bu ngeen ko ñàkkee ñi jàmb loola nag duhut jëfi gor duhut jëfi lislaam duhut jëf joo xam ne tamit nit ku baax dana ko def nit boo bokkee moom ngeen nekk ci ker gi bu naaj wi ñëwee àndal ak moom nga nekk ca naaj wa loola lislaam bëgg waaye ku ko lu neex bu neexee ma ànd ak moom bu naqaree ma jàmb waaye ku lu neex ku ne ma naa ànd ak moom loolu loolu mooy ngor li nit day gore gor lu am solo la ci nit day gore moo tax yàlla ne sa yaqulu xal naa wax lakka ñeexal la almuxallafuuna ñuñ gannaawal ña min al arabi ci giiri arab yi ci arab yi dëkkee ci xàll ba te al arabu asadu kufran wa nifaaqan xal si nañoo wax ne saxalan naa soxlaal nañu am waalu naa suñ xalal yi wa ahlu naa ak suñ ñoñ ñi fastaxfir jéggala rek lanaa ñeexal ñu ci tarde giñ tarde yàlla ne maa leen xam yaqulun dañuy wax rek bi alsinatim seen làmmeñ yi maa laysa fii quluub li nekkul seen xol yi li ñuy wax du dëgg ci ñoom fa man li ko amul kenn ku leen mën a jeñal làkkum ñeexal leen mi ne laay ci mbugalam yàlla say an dara in araada bu nammee bikum ci yéen dara lor aw araada wala mu namm bikum ci yéen nafaan njariñ bal li fi nekk kaana nekk na laahu yàlla xabiran di agi dañ kumpa bi maa taxoon li ngeen def ay naa naafiq lañu waxuñ dëgg li ñuy wax du dëgg ci ñoom lañ la wax ak la xol ba wax du benn munaafiq mooy koo xam ne làmmeñ waa rafet waaye ba rafetut man naa jëf-jëf ju bon nga jox ko kàddu mu wax a wax a wax a wax ba xamoo fooy jaarati benn waa ju neex làmmeñ mos na ma ne ah man de àllaaxira li ma jaaxal yàlla ne al yawma naxtimu ala afwaahihim waaye bu ñu mayoon ñu wax man danaa ci mën a génn waaye nag foofa kenn du wax <laughs> ndax am na ñoo xam ne dañoo neex a neex làmmeñ léeg-léeg suñ mbokki Gambien yi tooñee ko senegal dañoo dagg ngaam Sénégal yi dañoo dagg ngaam wax na dëgg léegi léeg nga ñëg si koo xam ne tabaarakallaahu dana la tooña a tooñ a tooñ ba tooñar bi la waaye bu waxee wallaay dana mujj lay la dana mujj xeey la loolu nag baaxut mooy jikkooy naafiq yéen yàlla nag ne kaay wax la yow yonantu li ne seen xol yi li ñuy wax naan jéggal ñu suñ xaalis la nangam ak nangam saxala naa am wàll naa du dëgg kaay ma wax la li ne seen xol yi man yàlla maa ko xam yàlla ne bal bàyyil sanamtum da ngeen a njortoon ne allan yan xali ba du wëlbatiku rasulu yonantu bi wal mooy mooy way gëm ñu du ñib si da ngeen foog ne duñ wëlbatiku ñib si mukk ilaa ahlihim jëm seen yoon abadan faw bu ñuy dem dañ cay dee daalika loolu fii qulubikum moo nekk seen xol yi wa ranantum njortu ngeen ranna suu i njortu lu bon wa kuntum nekk ngeen xawman diw nit buuran ñu xal ko wa man lam yomin ku gëmut bilaay ci yàlla wa rasuli ak yonantoom bi fa inaa naka ñun na naa xadul nañ lil kaafira ña la firi sairan safara te mooy ñii gëmuñ yàlla gëmuñ yonantu bi dañoo nekk jikkoy weñ lañ rek fu tooy ñu dal fu tooy nag neex naa dal ñoom daal ay weñ lañ te xam nga cere ju forox dafay bëri weñ waaye bu cere ju foroxatul rek da xam ne weñ ya weñ ya gàddaay ko kon nag cere yu forox yu bari weñ yaa nga ca waaye bu foroxatul rek weñ ya weñ ya gàddaay ko tax nit ñi dañoo naqaree xam feeg nekkoo ci jafe-jafe doo leen xam mu ngo mu ngoog kon loolu la ca wax mu ngi mel ni aaya ji suñu réew mi la wàcc moo tax mu ne walillaahi aji nekk la ñeel yàlla mulku samawaati nguuru juróom-ñaari asamaan wala arde nguuru juróom-ñaari suuf yaxfiru dana jéggal li man yasaaw ñeel ku ko soob wa yuazibu dana mbugal man yasaaw ku ko soob wa kaana a jekk allaahu yàlla xafuuran jéggalaa kon la rahiman yërëmaa kon la yàlla moomu tamit lu wax ja jeex nag léegi nag eh, yàlla dafa lay nag ci aaya ji ci tegu ne dem ba xuday bi ya ngeen dëpp te bëggoon dem màkk métti na leen danaa leen ko fay li ma leen koy fayee bu ngeen ñibbee ci weeru tabaski wi balaa tam xarita jeex rek danaa leen yoonal ngeen dem xaybar xaybar nag dëkk bu bëri naataange bari nañ ay jur ay gëléem dëkk bu bëri tàndarma la danaa roof ragal ci ñoom bu ngeen demee ngeen xeex xeex daanaka sax du am su ko defee alal jafa nekk yëpp ngeen màng ko yóbbu ko ci la sax saxaaba yu bëri ci la ñuy gisee ñu bëri ci lañ nekkee ay ay ay ay ay millionnaire ci alal jooju bañ ko séddoo waaye nag yéen ñi nga xam yéen lañ sélectionné woon ci Hudaybiya di mille quatre cent kenn du leen raax yéen ña demoon rek yéen a cay dem gis nga yàlla ni mënee fay yàlla rek a jar a lebal léegi nag euh, ba bés aaya yi nag wàccee yàlla dëxal ñu ko nag ñoom tamit a jàng ko nag ba yonentu bi war a dem xaybar rek ñu ne ñun dañuy dem yonentu bi nag du ngeen dem de yàlla ne ko xam naa ne nag boo leen du ngeen dem dañ la wax kàddu yu ñaaw lu ñuy wax mooy da ngaa xañaan yaag sa gars yi da ngeen a xañaan teraanga jafane rek ngeen bañ ñi bokk ci kon séddale xalal xam ñoo teggi ñu ne da ngaa lu fi yàgg la am na ñoo xam ne boo leen boo leen xeñee rek ñi xas la boo leen i rek ñi xas la boo leen xeñee ter seen teraanga kàddu gu ñaaw guñ xam dañ ko teg sa der donte xam nañ la ñuy wax sa duhu dëgg yàlla ne ko nag dañ la xas nag waaye faw nga muñ ko moom lay wax nii moo tax mu ne ko sa yaqulu xal si naa wax al muxallafuuna ñuñ gannaawal ña idan talaqtum su ngeen boyee ilaa ma jëm ca màng ma ca xayba li taaxuduha ngir ngeen jàpp ko dañu wax ne zaru naa bàyyi leen ñu na tabiakum ñu toppi leen yuriduna ñoom dañoo namm an yu baddiloo ñi wattee kàllaama laay kàddu yàlla te kàddu yàlla mooy ne ca asal ña demoon fee ñooy dem fële qul wax leen ne leen daal lan naa du ngeen ñu topp mukk kazalikum lool la seen mooy ñàkk ñoo topp te ngeen toog xaala wax na ko allaahu yàlla loolu la wax min qablu ci njëkk waaye bu ngeen ko waxee tamit fa sa yaqul na xal si na ñoo wax ne bal bàyyil tax su du naa na da ngeen ñoo xañaane rek bal fi nekk kaana kaanoo nekkoon nañ laa yafqahuuna ñoom dégguñu yàlla ilaa xala lu dul néew qul waxal lil muxallafina ñeel ñu wuute ne la ne leen sa tuddoo aw naqal leen a woo ilaa qawmin jëm ci nit uli bë si ñay kartan shadidin bu li maanaam tuqaat loolu ngeen xeex ak ñoom mbir moomu da xeex ak ñoom aw yuslimoo mbaa ñu jébbalu fa in tuteexoo bu ñu leen toppee nangoo xeex ak ñoom dana jox leen laahu yàlla ajaran payoor xasanan gu rafet wa in tatawalaw bu ñu dëddoo kama tawalaytum comme na ngeen dëddoo woon ca bu njëkk ba min xablu ba yuxasibkum dana xisaab leen mooy dana mbugal leen moom yàlla xasaaban mbugal alim na yeeru leen ba ca kanam ba mu tàngaat bu leen leen bu leen yóbbu ci sedd bi bàyyil ba mu tàngaat ne leen am na yeneen xare yu ñëw ci suñ kanam xare yu tàng lay doon nag suñu nangoo topp leen ca xare yooya rek man jéggal naa leen euh, danaa leen jox payor gu rëy rëy suñ la nangut a topp nag ay xéeféer lañ safara lañ jëm waaye ba xare yu tàngaar yi ñëwee tamit nanguwu dem yi ñu ne xare yu tàngaar yi nag saxaaba yi wutee nañ ci ñii nañ mooy xare yi ñu war a defi Faris ca Perse ñii ne mooy ñu war a def ca Rome xam ne room yooyu xare yu bëri la woon yii xam ne seen gars yi ay ñay lañ waroon la ca dee ci saxaaba yi kenn xamut nuñ nuñ nuñ toll mu jigéen nag gars yi bañ songaatee ñu am victoire mu ne leen nag bàyyi leen yeeru leen leen ba foofa su ngeen leen wooyee ñu topp leen jéggal naa leen seen gëm yàlla gi kon baax na suñ leen toppul nag ay munaafiquuna lañu ay kufaar lañ safara laa leen jëmee waaye ba loola xewee tamit nangu ñoo dem munaafiq daal bu seddee mu ànd ak yow di la njiin di la bàkk bu tàngee mu xas la wan la gannaaw mel ni musulaa xam yàlla na yàlla musal ci jikko jooja yonent bi daana wax ne ayatul munafiq salaasa ida xadasa kasaba wa ida waada axlafa wa ida tumina xaana ñetti mandarga mooy mandargaam naafiq kum ne ci yow rek xam nga jikkooy naafiq benn bi mooy mu ne koo xam ne euh, boo ko xóoloo ba dénk ko kàddu mu sennal ko wax ko téeméeri nit ne yow rek laa ko wax ak a bëri boo ko xóoloo ba ko sa mu wàññi ko mu maanaam mu sennal ko mu këpp kees ga mu ne kooka naafiq la jërub dénk dara su la joxee rendez-vous faussé la léegi nag rendez-vous olof la ñuy wax xam nga tax olof yi ñu baax lañ nag waaye léegi waaye boo waxee ñu ne tubaab yi kay dañoo fonk rendez-vous wax dëgg yàlla ñoom ñu gëmul yàlla gëmuñ yonent bi kay buñ fonkee rendez-vous yow mi julli nga war koo gën a fonk nag e, isa tumina xaana e, maanaam ay tumina isa xadasa kasaba bu waxtaanee ti waxtaan wa neex rek mu yokk ca lu ca bokkut mbaa mu génn ca lu ca bokk xam na beneen riwaaya bu ko def ñeent ne wa isaa xaasama fajara mooy bu xulooxee tamit xas la ba ba ba xànc la tuumaa la loo xam ne duwut sa jikko waaye dafa caa jublu ngir xas la rek mu ne kooku tamit naafiq la ñeent yi kum ne ci yow yonent bi nee na mu naafiq nga kon ñeenti jikko yooyu nag bëri na ci suñ société bi ma ne yii ñeenti jikko bari na ci suñ société bi lool léegi nag aayaat yooya moom la jeex na ca léegi nag ña demutoon ndeysaanam am na ñoo xam ne dañoo gumba yàllaa jël seen seen bët yi te gumba ku ko yàlla nattoo nga muñ ko ba dee aljana nga jëm metti na ci àdduna bëgg a dem mënoo dem bëgg a xool mënoo xool kii sa soxna la sax waaye xamoon nu mel kii sa doom la xamoon nu mel kii sa xarit la yaa ngi koy dégg si kàddu xamoon nu mel sa kër gi yaa ko tabax lu mbaa sa oto bi yaa ko jënd xamoon nu mel natt bu metti la waaye yonentu nee na gu ko yàlla nattoo nga muñ ko rek sa dëkkuwaay mooy aljana kon tamit baax na nee na tamit ngir fonk gumba yi tax na yonentu bi ne ab gumba sax ku yàlla jël ba bëtam nga xom mat ko ñeent fukki jéego ñu jéggal la sa bàkkaar yu njëkk yeeg yu mujj yi nga xool gumba bi rek mu bëgg a traversé bëgg a jéggi nga dagg sa yitte yow mi am bët teg ko loxo mu teg la loxo mbaa mu teg la mbagg ngeen ni dox ba mu man ñeent fukki jéego sa bàkkaar yi nga xamoon yëpp yàlla jéggal na ko kon yàlla fonk na maanaam gumba yi moo tax nañ leen di sóoraale te xam ne si société bi lañ bokk bu baax a baax ci lépp ñi nga xamante ne ay handicapé lañ mënuñoo yéeg mënuñoo wàcc di leen sóoraale tamit ci société bi ci lañ bokk ñoom nag la yàllay sóoraale nii nañ ci société bi lañ bokk ndax nag bi yàlla wàccee nii ñi tardé woon mënuñoo dem ah gumba yi def délégation ak handicapé ñëw ci yonent bi ne ko ñun nag mënuñoo woon a dem di yàlla ne ko yéen togguma leen dara ab gumba mënta xeexi ko ko handicapé amoo tànk mënoo xeexi ku say loxo waa manqué mënoo xeexi kon yéen amu leen benn bàkkaar ci tarde gi ngeen tarde dara fekku leen ci même sax da ngeen xam yoolu ñu xaree woon ndax am ngeen yéene ji kon gis nga yàlla sóoraale na ñii de kon nag ñii dañ leen di sóoraale ci société bi xam ne ci lañ bokk di leen teral ndax ku say cër manqué wax dëgg yàlla ku am sàkk ndimbal war ko yëkkati ca ñoom ku leen ku mën a ku sàkk ndimbal dimbale leen ca ndax loxoom yi moo doon koom-koomam ku ko doon jaayee téeméeri milliard du ko nangoo jaay yàlla nag xeñ ko ko ko kon xamatu dara su boobaa dee ko dimbale te yàlla tax ku yàlla jël say bët jël na sa koom-koom su boobaa tamit yow mi mbokkam mbaa nga nekk ko am doole nekk ci quartier mbaa nga def nangam sarax yeeg ndimbal yi ngay yëkkati dee ci suuraale ñooña ndax kenn gënul leen a xeeyoo ci ndimbal moo tax mu ne lay laysa alal ama déeddi war aji gumba ji xarajun bàkkaar ci ñàkk xare ji wala alal araji déeddi war ki nga xam ne tamit dafa handicapé maanaam laggi soox xarajun bàkkaar ci ñàkk dem wala alal maridi déddi wal aji feebar ji xarajun bàkkaar ki ñàkk dem mu man yu teex ku topp laax yàlla war a sowloo ak yonantoom bi yu duqilu dana tàbbal ko moom yàlla janaatin ay tool tajiri yooyu dana daw min taxtiha ci ronam al anhaaru dex ya wa man yatawalla képp ku dëddu nag ba nga topp yàlla yu azibu dana mbugal ko moom yàlla azaban mbugal aliman may boro ak métital kon ñii yàlla topp leen dara yow handicap bi bul dégg ñu ne lay sax alal ama xarajun wala alal ahraji xarajun nga ne man dama handicapé kon du ma jaamu yàlla te yaa ngi ànd ak sa xel caaxaan la ja de bu ju waxtu jot jot bu waxtu jot julli jotee jàppal Cheikh Khalil nee na su fekkee sa ciir bi dafa manqué loxo bi par exemple ñu dagg ko fii sa farataay njàpp mooy li ko dooree fii ba ci sa sa sa tikku njaay ba ci sa kii ba ci sa conc su fekkee fii la dagg li ko dooree fii ak fii faw nga raxas ko su fekkee benn loxo bi dagg nañ ko nag ba fii yow sa farataay njàpp mooy raxas benn loxo bi yeneen cër ya nag yi nga xam ne manqué wut nga raxas ko naka noonu tamit yow mi yàlla jël say bët nga nekk koo xam ne da nga gumba te réewu yàlla togg na la jëf de lim togg sa waajur wi gis moom na la togg comme yaa ngi ànd ak sa xel deel julli deel xoor del joxe asaka lépp loo xam nit mën na ko def jaamu yàlla def ko li nga xam ne nag nit mënu koo jaamu yàlla ci bët nag loola yàlla teggil na la ko yooya bàyyi na ci xel waaye léeg-léeg tamit nga gis xam ne cëram dafa manqué ah mu topp ca lool nag xaw a sàggan lool xaw a doy waar lool bëgg a nëbboo bëgg a làqatoo cër yu manqué ya tamit boo liggéey yàlla du ko topp yàlla du ko topp ca lool de du ko ko xoyofal de dana ko dana dana dana ko ko togg comme yaa ngi ànd ak sa xel daal mënaatu taklif ci xel la ne euh, li war sa baay moo la war loolu tamit handicapé yi ñu may déglu nañ ci bàyyi xel moo xam tànk manqué moo xam loxo manqué moo xam bët a manqué euh, lu ca moo xam noppa manqué lu mën a manqué tamit la nga manqué liwut topp ca yàlla jar na bàyyi xel léegi nag jaayante gi nga doon wax noonu sayidna Usmaan lay door a wax ni ci bopp saar bi laqad radiyallahu anil muminin moo tax mu ne laqad radiya gërëm na laahu yàlla anil muminin ca way gëm ña is yu bàyyi'unaka waxtu wa ñu jaayanteeg yow taxta sajarati ca roon garab ga ñu ne garab ga garab ak siddéem la faal li ñu ne garab ak teng la fa li ma xam na moom yàlla maa fii qulum nekk seen xol ya fa ansala wàccee na sakinata ak dal alayhim ci ñoom wa asaabahum yool na leen fatxan ak hubbee xariban gu jege te mooy xaybar wa maxaanima ak màng kasiratan yu bëri taaxudunaha yooyu da ngeen jàpp ko wa kaana naka jekk allahu yàlla azizan ku not la ci nguuram xakiman ku xereña la su ko defee mu ne nag a yàlla gërëm na leen dee ci jaayante gi ngeen jaayante ngeen tubi seen bakkan waaye nag gërëm gim leen gërëm dana xam lu leen ci wan weer wi bu deexee balaa beex dee muy maanaam weeru muharram danaa leen def yéen ñu ñàkkoon ngeen nekk ay millionnaire am xalal ju bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri yoo xam ne yéen a ngi koy jëlee koo ca loola su ko defee kon nag loola eh, dana leen ko loolu la leen dëxal ca wàllu woowa su ko defee nag eh, am na yeneen màng yoo xam ne yeggagu leen ca nag fathu Makka ak eh, dem Rome ak dem Éthiopie dëkk yi ngeen war a hubbeeg yëpp dugal fa lislaam ba ca Xudsu te foofa yëpp xalal ju bëree bëri ngeen fay màngee loola maa leen koy dëxal taf maanaam ñëwagut moo tax mu ne waadakum dëhal na leen allahu yàlla ma ay màng kafiratan yu bëri taaxuduunaha yooyu da ngeen jàpp ko fa ajjala gaawe na lakkum ñeexal leen haadihi màng mii ci xaybar wa kafa fekk na aydiya naasi loxol nit ñi muy yahood yi an ko walis leen xeexamu daanaka wali takuuna ngir na nekk aayatan di kaawteef lil moom ne ñeel jullit ñi wa yahdiyakum dana mu gindi leen siraatan ci yoon mustaqim wu jub kocc wa oxra am na yeneeni màng yoo xam ne lam taqdiruha Eh, dogagu leen ca maanaam xamagu leen ko alayha ca moom maanaam xattanagu leen jot ca xad axaata peeg na allaahu yàlla bihaa ca loola yàlla moom xam-xamam peeg na lépp wa kaana naka jekk laahu yàlla xadiran ko xattan la ala kulli seen ci lépp lëf walaw qaatalakum su fekkoon ne xeex na ñoog yéen lazina ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ la wallaw koom ñu wane danañu méngale baara gannaaw ya suma laay ji duñ topp ñu fekk wala yéen ku leen dimbale wala ku leen méngale wala nasiran caaken ku leen dimbale mu ne même bu ngeen demoon xeexoon Makka gi ngeen doon dem Xudaybiya même bu ngeen xeexee woon yéen ay gañe fekk si woon nañ leen Uhud gañe leen ca njëlbeen ga mujj ngeen gañe waaye maa ngi leen di xamal ne su ngeen demoon Makka tamit xeex yéen gañe waaye man yàlla maa bëggagut xeex bi am li tax bëgguma xeex bi am nag danaa leen ko wax ca kanam lu tax mooy ne am na ñu nekk ca biir Makka ñu nekk ñoo xam ne ay julit lañ te seen julit ga dañ koy gëm te yéen dañ koy nëbb te yéen xamu leen leen te yéen su ngeen xasoon dem di xeex da ngeen di attaqué ray ñëpp rek te boo rayee koo xam ne jullit ta xamoo ko da am problème dana métti ci yow ndax faw nga def kafaara téeméeri gëlëm yàlla dana la jégal bàkkaar mais da nga kafaara téeméeri gëlëm loolu dafay métti nag man nag ma xam jullit ñi ci biir ñu koy nëbbu te yéen xamu leen leen moo taxoon ma bañ ngeen dem yegg ñi cokkaas leen ngeen xeex ak ñoom ray leen ba rayaale ay jullit mu nekk problème li tax xuday bi xare bi amut waaye man yàlla xam naa ne bu ngeen demoon xeexi tamit yéen leen di gagné lu tax mu ne sunnatallaahi muy yoonal ak yàlla gum yoonal la tey nga xam ne xat xalat woy na min xablu ci njëkk walan tajida fekkatuloo li sunnatallaahi ñeel yoonu yàlla wile tabdilan ak watee wa huwa moom yàlla la si mooy buur ba nga xam ne kafa fekk na aydiyahum seen loxo ya ñoom xéeféer ya xankum walis leen wa aydiyakum ak seen loxo yi anhum walis leen bi banni màkkata ca biir màkka min baxdi an asfarakum gannaaw ba nga xamee ne duufaloo na leen àllayhim ci ñoom wa kaana naka jekk laahu yàlla basiran xamaa kon la bi maa taxoon li nga xam ne yéen koy def de lii beneen histoire la bi yonentu di bi Hudaybiya Ikramatu boobu tuubagu di doomi Abi jël dafa ànd ak armée bu xaw a bëri ñii nañ mën nañ juróomi téeméeri nit ñu ñëw nag bëgg a songu yonentu bi ak saxaabaam yi bañ demee ba leen songu rek yàlla dogal jullit ñi far fogoru jël ay xeer di leen sànni di leen sànni bañ far daw am na juróom-ñetti fukki nit ci ma ñëwoon di leen songu si saxaba ya far jàpp leen ñu jekk ay jaam waaye yonent bi comme xeex taxul ko woon a jóg sax loolu moo indi sulxu bi mooy xéwénoo gi moo taxoon Makka yónnee ma bnu Mas'ud mu ñëw wax gannaaw sax gi ñu ne noo bnu Amrin ñu ne suñ prisonnier yonent bi jàpp di juróom-ñetti fukki yi dañoo bëgg mu delloo ñu ko yonent bi ne tamit fukki yi ngeen jàpp ak Seydina Ousmane ngeen delloo ma ko kenn ku ne delloo sa morom prisonnier su ñu ñu door a signé nag yooya accord yañ signé nag bi door a dem ñibbi nag Euh, ah, ah, ah, Ousmane sax ba mu demee waa Màkka dañ ne ko ah Kaaba gaa ngi nii bu la neexee nga wër ko waaye yonentu moom mayun ko mu jege Kaaba gi du ko wër de xanaa yow Seydina Ousmane ku am yar ak teggiin la mu ne Kaaba guñ kañ yonentu bi te bu fi Kaaba gi ne ba ñuy xam valeur Kaaba gi yonentoo tax soxlawuma ko du ma ko wër loo cay déggee luñ xañ sa kilifa bu ko soxla lépp loo xam ne xeñ nañ ko sa kilifa gi boo xamee jom bu ko jël waaye nga toog ñi lay jay ne c'est que sa kilifa yi bëggoon nañ ko sax waaye yow niñ la soppeek niñ la bëggee tax ñu jox la ko nga yow di góoxi lex di ko jël du la jik loola baaxul luñ xëñ sa kilifa rek gedd ko moo tax Sayyidna Usmaan mi bañ xëñee kilifaam gi wër kaaba gi mu ne soxla eh, soxlawuma kaaba gi kaaba gi li muy for for gëj naa fi juróom-benni at meetuma ko wër loola mooy ngore loola mooy baax loolu mooy yar loolu mooy teggiin war kaaba ga gannaaw waaye mujj nañ tabaarakallaahu yàlla jox leen kaaba ga ñu mujj xilif ko nag li tax ñoom ñu tere yonantu bi kaaba gi la yàlla wax mu ne jombalu rek ne ah barki démb yaa fi ray suñ gaay ca Uhud ca ca Badar ray nga ci ñun Uhud ñu bëri suñ doom yeeg suñ mbokk yeeg suñ bàyyi waay waay su fekkee dañ laa bàyyi nga ñëw dugg ci kaaba gi cig noteel kon ñun dootuñ tekkeeti dara ci giiri araab yi kon day mel ni ñun tekkiwuñ dara ñu ne nag yàlla ne ñooñu dëdd loola kaaba gi ñooy ñoo xam ne gëmuñ yàlla ndax kat demal rek nga loj sa gëléem yi taxem foofa ta nga dem ñibbi li tax nag man na ngeen ñibbi am na ay julli ñu nekk ca biir wallahi su ngeen duggoon da ngeen leen rayaale te ngeen xamu leen leen man yàlla maa leen xam ndax seen lislaam ga dañ koy nëbbu suñ ko manifesté woon waa Màkka ray moo tax mu ne ko hum ñoom ñooña lazina mooy ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ wa saddookum dëdduloo nañ leen anil masjidi walis jàkka ja xaraam ba de bu ñu xormaal wal hadiya ak hadiyu ja maxkuufan ba de bu ñu xeew an yabluqa walis muy joti maxillahoo palaasam ba palaasam ba nag mooy xurum ba fa ko waroon a rendee ji fa lañ ko war na lojee ji ñu tere la tey nag kuy war a xaji màkka ñi xa ñi xas gaw la fañ la xemle rek foofa mooy ngay rendee sa hadiyu ci la Maalik jëlee xatte bi soo fi départoon ne may xaji màkka ay noon gaw la fekk yaa ngi sa hadiyu fa nga xem rek ngay xewee ko maanaam loj sa hadiyu ñibbi moo tax yonent bi tamit ba mu demee yeggut fa ñu war a rendee hadiyee comme nag protest nañ ko mënta demati foofu lay lojee hadiyu rek mu ñibbi mu jeex moo tax mu ne ko kon ñooñu ñoo xam bàkkaar yàlla ne walaw laa rijaalun bu taxutoon ak góor muminuun nga di way gëm wa nisaawun ak i jigéen muminaat nga di way gëm yàlla lam taxlamuhum te yéen ñii xamu leen leen an dégg nga an tatawuhum ngeen rey leen te bu leen reyee fa tusibukum dana jot leen minhum ca rey min minhum ca ñoom maaratun bakkaar maaratun ak tiis te mooy war a joxe diya bi xayri ilmin ci lu duwut xam lu yu dëqi la ngir na tàbballaahu yàlla fi rahmati ci yen ba de man yasaaw ku ko soob law tasa yeloo su fekkoon ne xàmmee woon nañ jullit ña ca biir xéeféer ña li konoon la azab naa danañu mbugal la si nañ nga xam ne kafaroo weddi nañ minum ca ñoom azaban mbugal aliman may borom ak méttital wallahi bu ngeen buñ xa bu ngeen xàmmee woon jullit ñi ma leen xàmmee dinaan leen wax ne dugg leen màkka ngeen umra buñ leen teree ngeen xeex ak ñoom te yéen leen i gañe waaye xàmmeewu leen leen ndax da ngeen nëbbu seen lislaam ga te bu ngeen dalee ki ñoom ray leen te bu ngeen leen rayee da ngeen jëlee ñaar da ngeen ko jëlee bàkkaar su ma leen jéggalul da ngeen ko jëlee war jullit bu ngeen ray téeméeri gëléem da ngeen ci jëlee tamit ñi xas ma ndax dañuy wax ne yonantu bi kat ay sahabaam ay boppam sahabaay boppam yi ñooy far di rayante ñu ñu bokk parti waru ñoo rayante te mën ñun ñëpp bokk parti bi ñu ngi ba far di xeex di rayante loolu jaaduwut lii a tax nag ma ne dem leen ngeen loj seen gëléem yi te dem ñibbi wallahi balaa ñetti at yaa jeex seen xol dana sedd da ngeen xam doole joo xam ne yéen dañ leen di neexal waaye dootu leen neexale ci kenn waaye ji diggante ñetti at yooyu la fi lislaam liggéey kenn mënu la koo wax ñoom nag ñu ne ah dañuy bañ nga ñëw rek dugg suñ dëkk bi ki noteel barki démb nga ñu duma ñëw dugg suñ dëkk bi tàgguwoo ñu kon ñun dootuñ jëra ci dara ci arab yi loolu la yàllay wax ni ak jombalu jombalu baaxut moo tax mu ne is jaala ba mu defee la si na ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ fii qulubihim seen xol ya alxamiyata jombalu ga xamiyatal jaahiliyati jombal ak jaahiliya ga laa wax fa ansala wàcce na laahu yàlla sakinatoo ak dalam ala rasuli ci yonantom bi wa alal muminina ak way gëm ñi wa alzamahum taqale na leen kalimata taqwa baatab laa ilaha illallah wa kaanoo nekk nañ axaqa di gën a xëy xéeféeri bihaa ci laa ilaha illallah wa ahlaha ñoom ñooy ñooñu laa ilaha illallah wa kaana naka jekk allahu yàlla xaliman xamaa kon la bi kulli shay'in ci lépp lëf kon nag dem leen ngeen ñibbi lii laa dogal man yàlla dem leen ngeen ñibbi bu leen xam benn problème gént ak yonantu bi nag dana dëggu ndax nag di yonantu bi gaa yi dëppee nag gaa yu bëri dañoo saalik Seyduna Omar ku tàng la moo ñëw ci Aboubacar ne ko waaw yonent bi waxutoon ne moo gént ñun ñu dugg ci kaaba gi wër ko ñiy watu watu ñiy loj seen gëlëm ya loj seen gëlëm ya mu ne ko waaw moo ko wax de mu ne lu tax mu demee nii mu ne ko waaw yonent dafa laa waxoon ren dafa ne gént naa la dañ dugg fa waaye waxu ren nag <laughs> da yàkkamti rek moom nag mu dem ca yonent bu mënu koo muñ commencé di ko wax wax na yonent bi ñetti yoon yonent tontuwut ko ndax léeg sa kilifa xam loo xam ne boo koy ñëw di ko wax dafay mujj noppi rek ndax day am kàddu yoo xam ne noppi mooy tontu la mu jigéen a Omar ne ah man de torox na man mi wax ak Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñetti yoon tontu hut ma fu ma jëm gannaaw si gi nag ba saar yu wàccee yonent bi xoo ko mu ñëw mu ne ko yàlla wàccee na ci man saar woo xam ne mbooleem saar yi wàcc ci moom moom la hëpp cofeel ci moom kontaan naa bég naa sant naa yàlla Omar nag door a firi nag kontaan yàlla nag di wax ne gént ga dëgg moom lay wax ni gént gi ne laqad sadaqa wallaahi sa dëgg dëgg dëggal na allahu yàlla rasulahu yonantoom ba ruyaa ca gént ka bil xaq ci dëgg te mooy la tadduquloon na da ngeen dugg wallaahi almasjida jàkka ja xaraam ba de bu ñu xormaal insha allahu bu neexee yàlla tabaru rek la amin na mbir mu ngeen di way hóolu mu xalliqiina mbir mu ngeen di wat way mbir mu ngeen di way wat ruusakum seen bopp yi wa muqassiriina ngeen di way duufu te mooy coiffé laa taxaafuuna du ngeen ragalati du ngeen ragalati benn noon yéen kay dañ leen ragal waaye dootu leen ragalati fa ma xam na moom yàlla ci xéwénoo gi maalam taxlamu lu ngeen xamut ci xéwénoo gi fa jaala def na min zoni zalika lu xees loola fatxan ak hubbi xariban goo xam ne gu jege la te mooy xaybar bu ngeen dem rek am fa alal léegi nag mbir moom a jeex na xaybar ñëw na nag xaybar nag tabaarakallaahu yàlla ubbil na ko yonantu bi dafa ñibbi sallallahu alayhi wa sallam weeru wax naa la ko tabaski tam xare rek di xatam juróom-ñaareel ma mu ànd ak junney soldaar ak ñeenti téeméer 1400 ñu war a dem xaybar bañ demee nag dëkk ba juróom-ñeenti tata lañ am dëkk bu bari naataange la ak xéewal bëri tàndarma bëri ay euh, ay jëléem léegi nag ñu war a hubbi tata ya yonentu bi xëy jël drapo bi jox ko sayduna euh, sayduna aboubacar ñi dem amuñ ndam ci ëllëg sa mu jox ko sayduna omar amuñ ndam mu ne dem leen ñibi bu subaa danaa jox drapeau bi koo xam ne bëgg na yàlla yàlla bëgg ko moom tamit mu bëgg yàlla yàlla bëgg ko Seydunaa Omar nee na musumaa ñaan pal waaye guddee keroog allahu akbar asalaamualeykum yow yàlla naay kooka laa fanaanoo ba bër set ndax kat yàlla bëgg la yonantu bëgg la jar na ñaan ba dee muy tekke ne yow tamit bëgg nga yàlla loolu jar na ñaan ba dee ñu xëy rek yonantu bi ne ana salmatum na akka wax mu ne ko maa ngi nii mu ne ko demal xool ma àlliyu ba mu ne ko xool rek àlliyu rek Seydunaa Omar ne ko dafa wànnentu moo ko njëkk wax pour bëgg muy moom dafa wànnentu de wànnentu mu ne ko xool ma ko mu ñëw mu ñëw bët yaa nga wànnentu ba muy muuru yonentu bi ñaan la muy ñaan taf li ko ca saa sa wànnentu wa teqali ko moom yonentu bi yëkkati drapeau bu weex tàll teg ko ci loxol Aliyu su ko defee nag drapeau ba ñu bind ca laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah yonentu bi nag buy dem ci dëkk ñaareel war koo toji fajar lay dem ci guddi gi ci guddi gi bu toogee fajar déggu nodd rek mu xam na ñii duñu nitu yàlla bu toog nag guddi gi la dem ba fajar gi déggu nodd moo dégg mu xam ne ñii kenn gëmut fi yàlla déggu nodd du ko defee nag mu ne àlliw xooleen ci ñu gëm yàlla suñ bañee ne leen nañ joxe galak muy impôt bi su fekkee bañ nañ nag xeexal ak ñoom àlliw attaqué tataja tataja nag fa la murhab nekkoon yi fàkk tëdd la moom kenn rek mën naa rey téeméer junne nit ñu ne sax junne nit mën na leen a duma ngir doole jam am ak tabaarakallaahu ñeme gaag fidwa tataja tamit bunt ba nga xam ne moom ci la nekkoon bunt ba rek juróom ñetti fukki nit ñoo ko daan hubbi sayyidina Aliyu yàlla jox ko dooleem mu jaaree ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw jël loxoob càmmooyam bi rek la jël rek jàpp buntu tata ji rek sànni ko ba mu ko sànnee ñeent fukki xasabu la la la maanaam buntu ba naaw door a daanu nga xam ne doolee yàllaa nga fa ci wama ramayta id ramayta walakin laaha rama mu tijji tata rek mu raxab génn jàmbaari fàq tëdd la ñi léewoo yàggul dara ba ñu avant ñi léewoo kenn ku ne bàkku nag mu raxab bàkku ne ko xat alimat xaybaru anni murhabu shaaki silaahi batalun mujarrabu ida alxurubu aqbala tëlhabu wal tëltahibu tëlhabu sayduna aliyu tamit jug nañu bàkku ne ko an alladi avant mu koy wax dafa ko waaw déemu ci guddi géntoo yaa gént gaynde ray la man maay gaynde googa déemu ci guddi gént nga gaynde ray la man maay gaynde googa an alladi sammat ni ummi haydara ka laydi gaabatin kariha almandara uufihim bi saa'i kay la sandara aa gannaaw bu kenn ku nekk bàkkoo nag ñoom ñaar ñu roofoo ba ñu roofoo rek sayduna aliyu ray murhab ci ray gu gaaw ba mu ko rayee hubbi tataja juróom-ñeenti tataja ca desoon yépp hubbeeku ñi mbàng xalal ja jëlee fa xalal ju dul jeex ña ñàkkoon amuñu dara ci lañ nekkee ay millionnaire ànd ak alal ja nag ñibbi dem dem madinatul munawara sayduna ay saydatuna ay daana toog yàgg sax mu ne a ah, daana caali ne hee ñun de ñun di ren ren tàndarma rey ñu ndax tàndarma ji bëri gum bëri mu ne ñun di ren ren tàndarma rey ñu ndax xaybar dafa bëri tàndarma lool te loola lépp yàlla jël na ko jox ko jullit ñi su ko defee nag xare boobu nag lay wax ne moom la leen moom la leen jox muy euh, màng moo xam ne mu sedd sedd la ñu jugee ko faam loolu léegi nag saar wi mottali ko day wax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam muhammadu rasulullah xoolal tey ni yàlla portalee yonantu bi bi mu portalee yonantu bi mu portalee saxaabaay yonantu bi mu def ko tamit ñetti portale portale bu njëkk bi mooy jamono jii fii alquran wàccee ba ba may wax ak yow ba may àddunay tukki baneen portale bi nag téeréeb yonantu yàlla Muusa ba moo ko portale woon muy tawreet baneen portale ba téeréeb yonantu yàlla Isa ba moo ko portale muy injiil xoolal nim ñu portale lay wax saar wi jeex moo tax mu ne huwa alladi arsala rasulahu moo tax mu ne huwa moom yàlla la mooy buur ba nga xam ne arsala yónni na rasulahu ndawam li bil huda ci njub wa diinil xaqi ak diiney dëgg ji li yuzhirahu ngir na ko feeñal ala diini ci diiney caaxaani kullihi léppam wa kafa doy na shahidan ci aji seede bi ci yàlla yàlla moomu nag moo wax ne muhammadu muhammad rasulullah yonantoob yàlla la na ña nga xam ne maahu ànd nañoo moom asidaa woy xiis lañ alal kufaari ci xéeféer yi ruhamaawu ñu bëri yërmande lañ baynahum seen diggante ñu mën a yërmande baynahum seen diggante taraahum da nga gis leen rukkaan ñi di way rukkoo sujudan di way sujoot yabtaxuuna mbir moom danañu sàkku fadalan ngëneel mi ne laay gu bàyyi ci yàlla wa ridwaanan ak ngërmande siimaahum seen mandarga ya fi wujuuhihim ak yi nekk seen cëlmaa ya min athari sujoodi mbir mu muy bàyyee koo ki jeexitunu sujoot daalika loolu masalahum mooy mooy seen melo fi tawreet ki tawreet wa masaluhum seen melo nag fil injili ci injil ka sar'in dañoo mel ni ki mbay axraja mbay moomu génnee na shatahu xam nga fa azarahu mu dëgëral ko fastaxlasa mu dijji fastawa mu hemoo ala suqihi ca peeram ya yujibu dana héemaloo suraa ña ko bay alif ji dafa wattee maanaam idaafa suraahu su ko defee li yaqiisa ngir na xiis bihim ca ñoom alkufaara xéeféer yi waada dëxal na laahu yàlla si nga xam ne amanoo gëm nañ wa amiloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafila yi minum te ñoom maxfiratan ak njéggal wa ajran ak payoor aziman gu màgg mu ngi mel ni kon maxfiratan wa ajran aziman ci la saar wi jeexee sax tafsir bi jeexee ci yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nañu yàlla defal maxfiratu bàkkaar yëpp yàlla nañu ko yàlla jéggal yu njëkk ya yu mujj yi yiñ tay yiñ xam yiñ xabut yu mujj yi toppaange yeeg yëpp yàlla labal ko ci ma yërmandeem gi yàlla defal ñu ki tafsir bi ajran aziman payoor goo amul app ci yàlla goo xam ne ñun ñëpp kawe na suñ jortu defal ko ñu koy topp defal ko fu ñu mën a nekk ci àdduna bi defal ko sax ñu ko topp kuy jullit ci àdduna bi rek yàlla na ko si yàlla defal xaasal ci borom kër gi ñu may occasion bi portale bi mooy ne rek Muhammad yonantoo bi yàlla la sallallahu alayhi wa sallam ku ko weddeeti kon looy waxati yàllaa ko jeex na mu ne tamit ñi ànd ak moom ñaari melokaan lañ am képp kuy ab xéeféer dañuy dañuy dañuy seen xol day waw ci ci yow seen xol waw na ci yéeféer yi ab julit piir du am xol bu nooy ci ab ab yéeféer nit bu xasee noonoo yàlla da nga ko war a noono da ngay war a xiis ci moom waaye mu ne nag ab julit pire di àndoro yonent bi dafa war a am yërmande ci moromam julitam da ngaa war a sopp sa moromam julit yonentu nee na mathalul muminina fi tawaadudihim wa taraxumihim wa taatufihim ka mathalil jasad mu ne julit ñi nañ war a soppante ni ñu war a ni ñu war a mel dafa war a dem ba mel ni benn jëmm xam nga jëmm amul pet lu cay métti jëmm jéeb yëg ko sa tànk bi tey bu métti woon rek doo dem jàkka ji ñu laaj la waawee lu tere ñëw jàkka ji làmme ñëw di la dimbale mooy sa avocat sa sama tànk bay métti du bàyyi tànk wax ko waaye mu ne maa ko koy waxal ngir participer bët ya métti tamit làmmeñ waxal ko ko tànk ne du ma dem bët ne du ma xool loxo ne du ma yëngatu fii laay toog ci kër gi ngir ngir ngir tànk bi métti rek moom laay dimbale yonentu ne fekk loolu xamagul ci jullit ñi rek doxaguñ jullit moo tax mu ne moom man fil ardi yarhamkum man fis samaa yërëm leen ñi leen féetee suuf yàlla mi leen féetee kaw yërëm leen kon yërëm ne lu yaatoo yaatu la ab jullit dafa war a yërëm moromam jullitam am ci moom cofeel am ci moom ak ñëwanti am ci moom yéene ju baax waaye ab jullit tamit foo ko fekk dafa war a nekk ko rukkaan sujjadan di julli rek bu tusubaar jotee nga gatandu ko gan la bu ñëwee nga teral ko buy dem nga gunge ko bu tàkkusaan ñëw nga nga gatandu ko bu ñëwee nga teral ko buy dem nga bàyyi ko ndax diggante bi soriwut bu timis jotee nga teru nga teral ko buy dem nga gatandu ko nga nga gunge ko juróom benn rakkaa guddi gi nga continuer di ko gunge loolu moo lay may taaru xar-xaram siimaam fi wujoohim ab jullit nekk naafilakatu guddi di jàng alquran di pratiquer boo ne jàkk xar-xaramam ba rek gis ca leer fo mënta ñàkk jaamu yàlla day joxe leeru xar-xaram ndax leeru xar-xaram gi nekk ci sa biiru xol bi mooy feeñ ci sa xar-xaram bi Seydunaa Usmaan dafa daan wax ne ku rafetal sa biir yàlla rafetal sa biti kon nañ rafetal suñu biir ku sa ku sa biir rafet rek sa biti rafet su ko defee moo tax kon amu ne siimaahum fii wujuuhi min athari sujuud waaye nag tawreet defal nañu ñaari léeb yu sew moog linjiil nit yonent yàlla Muusaa ya ay nit lañu woon yoo xam ne ay ngërka lañ liggéey rek lañ xam dañoo nangoo liggéey fonk liggéey ba talunoo jaamu yàlla nit yonent yàlla Iisaa ya fonk jaamu yàlla ba taluñoo liggéey moo tax ñoom ñu ci ñu ci ëpp di ay labbe mën a jaamu yàlla lool man koo wéetal lool bëgg yàlla lool bëgg yàlla tax ba tuñ takk soxna kon ñoom yàlla nag ne xeetu yonantu bi moom dafa safaanoog ñim dafa nekk ci digg bi ñoom de bu guddi jotee dañooy jaamu yàlla ba mel ni labbe bu bëccëg jotee dañuy mën a liggéey ba nga foo ne nii ay ngër ka lañ moo tax maam xalifa aaya bi la waaye ne usudul xarbi naharan ruhbaanu bardi layaali dañoo bëgg nga boole ñaar yëpp parce que di jaamu yàlla ba taloo liggéey baaxut di liggéey tamit ba taloo jaamu yàlla baaxut da ngay liggéey liggéey bu dul yàqal jaamu yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla bu dul yàqal liggéey yonent bi toog na ñu koy taggal benn waaye ne ko ni mu baaxee day war bëccëg di guddi seen wax yow dem ba bëri yonent bi ne ku koy dundal ñu ne benn mbokk ma ko yore mu ne moo ko gën wax na dëgg ndax waajooj bu ko doxutoon muy lekk fu muy naafi la fu muy def loola kon lislaam diiney liggéey la da ngay liggéey ba mel ni Euh, doo jaamu yàlla waaye da nga jaamu yàlla ba mel ni doo liggéey moo tax nag linjiil gi nga xam ne ñoom ñooy nit yonentu yàlla Muusaa nga xam ne ñoom jaamu yàlla lañ tal ba taluñ liggéey moo tax ñun mu nira la ñoo mbay mu ne taw mu ne saxabaa yonentu bi tool lañ xam nga tool nag boo tànnee sa jiwu wi nga nga saa nga nga ji dafay sax gàncax ga lompañ lool néew doole bu demee ba ci kanam muy màgg dem ba ci kanam am doole dem ba ci kanam mu focc ay gub am ay doom yu bëri xas sakkan nag mu ne gis nga saxaaba yi diina ji ba muy tàmbali dafa néew doole lool aboubacar ak ñoo mën a lim muy dem nag di dëgër muy dem di dëgër muy dem di dëgër tey nag nekk na waxambaane woo xam ne mi ngi waaxu ki juróomi continent yi te kenn ñëmut koo joxañ moo tax mu nirale lekkook mbay mbay xam nga njëlbeenam dafa tuuti dafa sew waaye boo demee ba nga xam ne sa jiwu wi nga bayoon da nga koo yan woon waaye boo demee ba li nga bay woon sotti camion ngay wooy mu sëf ngooñ mi sëf gerte gi sëf mboq mi dem yóbbul la kon diina ji ba muy tàmbali néew na doole ba mel ni jiwu woo xam ne yaa ngi ko gis sa tool bi waaye ba mu demee ba ñor sakkan na saawaan na baawaan na ba tax na tey yonentu yàlla Muhammad moo ëpp njaboot ci kaw suuf moom kenn moo fi am ñaari milliards ak juróom-ñaar téeméer yu teg ku dul moom amoo loola kon kasarain axraja satahu loolu la aaya ji tekki ci liñ ci xam xam naa liñ yàq ci tafsir bëri na yàlla nañu ko yàlla jéggal liñ ci xam mu néew yàlla ñu yàlla may kartan guñ ko jëfee yàlla nangul ko ci nim toll boolem musal ñu ci bépp xay boolem mosal ñu ci wépp xiiw baat yu ñu fi waxee ñu ko dégloog ñu ko topp ak fi ñu mën nekk yàlla na ko yàlla ful adaafan mu daafa bu bëree baree baree baree baree bëri nekk ko aw xiiw maanaam ñeexal ñu ñeexal leen ñeexal boroom kër gi ñeexal jullit ñëpp baat bees laat suñu ñaan ñi ci kaso yàlla yàlla xettali leen ñi ci yàlla xettali leen ñi ci lali hôpitaux yàlla saafara leen ñu nekk ci xat-xat yi yàlla teggil leen ko ñu nekk ci réew yi topp di soxla ay kayit yàlla jàppandal leen ñaari kayit yi kayit guy tax nga mën a dem ñëw kayit goo xamee tamit boo ñëwee dañ xam ne tabaarakallaahu ñëwoon nga ñuy wéttali ci tafsir bi yëpp leen di sant di leen gërëm xam naa suba nag ci kartanal yàlla mooy nekk tëjte gi eh, li ñu kilifa gi santoon lañ ca man def nañ ko ca li ci des moom bu ñëwee dana ko tëjal boppam su ko defee tamit gën a leeral lépp loo xam ne lu lëndëm la yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën koo kartanal ci barkeb Seydina Muhammad